لوك تعلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقولن دي نيو دلنا زيار دلنا بالحق دلنا المال دي نانال السياسي المختار سنو برام يعقل كفي قال لكو كاتن بمو ماتلي بالي بين عالم بولم كلفة دينية جلد يب التالبين دي نيو شيخ محمد البشير بكي ابن شيخ عبد الخالق ميغا خامني مو جيتي ماغال بي ak ñimu andal liggéey bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax di ziare kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Mbambilor ak bokki talib yi fi nekk te bis bu am solo bii nga xam ne liy sabab bi mooy waajal bis bu nu dëgmal muy bisu màggalu Tuubaa di tàmbalee nuyoo yi ci Serigne Mouhamed Mbacké sëriñ Moustapha Mbacké sëriñ Mamour Bousso sëriñ Abdou Bousso ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di jaajëfal suñu wóllare wi ñu feggool ñu suñu xarit sëriñ Xadim Jaay Kayaar di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla suñu borom kattanal ko di nuyu sunu bàyyi bopp bi sëñ Modou Mbaye Sàmm soldaaru sëñ Touba ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko te dëgëral ko ba li mu am lépp yéene ngir liggéeyal ko tedd gi Cheikhul Khadim mu defe ko ni mu ko bëggee ci barke sëñ Touba di sant yàlla yi bu baax ci bis solo bi nga xam ne bisu sant la bisu ngëneel la di bisu tawfiq di bis boo xam ne it euh, bokki Bambilor ak tund wi li ko wër lépp ak bokki taalibe yi yépp am nañu mbégte mu yaatu ndax bis la boo xam ne yombul lu toll nii màggalu Tuuba ak dayo bi mu am gox bu ñu wax ne wàccaayoo fa lañ koy defee loolu ak sant yàlla la nga neel la waaye ñoom nag yaayoon nañ ko ndax seen pëseet jiitu na loolu seenu takku ak seen taxawaay jiitu na loolu bis bi nuy dëgmal nag day bis boo xam ne ñépp war a jóg ngir màggal ko lu tax mooy màggal ko mooy màggal ndamul lislaam du rek ñu ne màggalu Tuubaa ñu ne ah moom de bis la boo xam ne murid yi ñooy daje di sant yàlla seenu sëriñ rek ba muy wax dafa wax ne nañ ma ci sant yàlla sama borom ci lu tax mooy ndam li ko ci yàlla defal te ndam loolu mu ci am di ndam loo xam ne ndamul islaam la kon képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah anna muhammad rasulullah sant la yàlla Serigne Touba ci bis boobu war na la ndax lislaam moo ko jaraloon mu tayle bakkanam lislaam moo ko jaraloon mu bàyyi njabootam lislaam moo ko jaraloon mu nekk ci bi di tumuraanke ay at yu yàgg yoo xam ne gisul kenn ku koy wettali gisul kenn ku koy dimbale ku dul yàlla boromam ak kam doon liggéeyal mu yonente bi alayhi salaatu wasalaam tey jii bu jubsee adduna bi yépp yëg ne am na lu xew ñu ne màggalu Tuubaa bisub sant yàlla ndax dafay ndam ñii yëngu ci àdduna sax wala ñiy wut dara bu leen sunu borom joxee ndam ca bis ba ñu koy sàkku dañu koy feete ndax lu tax ñu ne ah ñoom kat dafa am lu ñu doon xëccoo wala lu ñu doon sàkku di ko wut ba am ko kon ñuy ñuy wonaat nit ñi ne leen ndam li ñu doon sàkku am nañu sëñ Tuubaa nag ndam li mu am mooy jëmmi lislaam la sowe jëmmi lislaam la yëkkati jëmmi lislaam la jox dayoom ci ni ab jullit war a jàppe lislaam ak li ko lislaam war a jaral ndax ñi mu joteeloon ba tax mu génn ci réew mi du ay tool yi yu ñu séqoon bañ naan dañoo séq suuf du it ak jur bu ñu séq bañ naan dañoo séq ak jur du wàllu koom bu ñu séq bu ñu la laajoon lu jotale sëñ tubaab tubaab bi benn intérêt yi amu ci mënoo ne dafa am tool yu ñu doon xëccoo wala moom kat dafa am fu mu bëgg a sàmm ñu ne ko doo fa sàmm wala ak juróom dafa ruur déedéet li ko tax a jóg mooy yonent bi alayhi salaam la suñ boroom tànn jox ko li gën muy lislaam jëmmi lislaam moomu nag dafa am ku ko yonent bi bataleel muy jëwrinam muy sëñ Tuubaa bu ñu bëggee ñaaj lislaam bala ñoo agsi ci lislaam ci moom lañuy jaar ba noppi door jàll ci lislaam te ñi jógoon seen yitte ñépp mooy loolu ba muy génn moom waxal na boppam li ko tax a jóg خرجت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار kon wax na ne bu ma kenn jàppee dara wala bu kenn xalaat ci man ne lenn mooy sama yitte ba tax ma jóg lu dul liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon liggéeyal yonent bi moo ma tax a jóg mooy sama yitte ba muy wax gentuk ay këram ay dëkkam sorik njabootam wi weesuwul tagg te mooy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam te ba muy génn wéetoon na lool tumuranke woon na lool lu tax mu tumuranke mu wéet mooy menn moom képp moo génnoon bàyyi fi njabootam wax ne xusuuri xallat wal ahlu an tafaaraqat li madixi alladi anhu lmadixu xasib sama kër yépp a gent Touba Mbakke Bari ni sëñ Moussa Kanaan taalum sëriñ bi daal di fay fa Touba wal ahlu ani tafaraqat njaboot gi ma amit yàlla sorele ma ak ñoom ma mel ni ñu tàggoog ñoom gisatuma Cheikh Moustapha te booba juróom-ñeenti at lam gisatuma Cheikh Abdoul Fadal juróom-ñeenti at lam sëñ Baara juróomi at lam ak njaboot gi gisatul benn taalibe sori na samay dom, sori na samay talibé sori samay bok lenn rek mako yobé li madhi ladi anhu lmadihu qasim yonent bi salaa salaam mi ma am yene liggéeyal ko ta luma nat ba japp ne yayo nako mu gàtt ta munuma baye mukk te sa lama koy natal lo rek ma tax gaday baye samay kër sama lepp ba muy génn amul genn gannaay gum yor lu dul xalimaam ak daam abdulay salim ibnul xanbal nee na garibun la daa jundil ida wa silaahuhu midaadun wa aqlaamun turayasu bi shukri saatu si muy sote xalimaam képp bu dee yor ñaw ka moom lay yor amul geneen gànnaay gum yor ba noppi yàlla dëkkal ko ci biiri noonam te noon yi am ay kënu am ay fet am ay xeej te di ko jëfandikoo ci moom jamono bu nekk waaye yàlla nag naxasal naaxsaayal seen pexe ya ak seen bëgg goog yi ndax boo waxee yàlla dëkkal na ma ci biir noon ya te seen gànnaay ya nax leen war leen mooy tegtale ne gànnaay yanu yor daanoon ko jëfandikoo ci moom ajaanil qaxaaru min jumlatil ida waxaanatumu armaaxuhum wal madafia kon fett yan yoroon di ko jëmee ci moom fett ya daf leen wor waaye kënu yënu yoroon di ko jëme ci moom it daf leen moom muy kenn koo xam ne ab wéetaayam weesuwul gaaw bi mu bàyyi koo mbakki baari ak gaaw ba ca 21 septembre bi mu bàyyi ko fii fi ndakaaru départ tab ci biir loxo yi ñoo xam ne kenn ku muy yónni amul ku muy woo mu yow santam amul ñooñu ñëpp seen pexe ak seen yitte ja mooy li fi jëlee bakkanam képp ak pexe mu ko tax kenn du fi déggati aw turam ñuy xalaat béréb boo xam ne bu ñu ko fa yóbboo lañ bëgg ca loolam ca moom lépp ñoom waaye moom comme àndal mooy mooy boroomam mi nga xam ne moo ko aar ci mboolem lor yi bàyyi ko fu nekk loolu bi mu amee ñu yóbbu ko Gabon waxal na boppam ku nuy wax Serigne Mbacke Diouf sëñ Touba moo ne ko guddi gi ma jëkkee fanaan Gabon wéet naa fa ba mel ni néew boo tàbbal ci bàmmeel ay bokkam ñibbi te gisuma fa lu may njaqare kon wéetoon na ndax ab néew bu ko ay bokkam suulee ba dellu moom képpay des na cundum sëñ bi nee na ni ab néew di wéete ci bàmmeelam bu koy bokkam soolee ba ñibbi noonu laa wéete woon guddi gi ma jëkkee fanaan gabaw te gisuma nag lu may njaqare képp waaye ma wakkiirloo yàlla doyloo ko nag def ko muy sama borom doyloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene mission bii ma yor ma remplir ko ba mat sëkk ba ngir ne muccu nit ñi muccu doomu aadama yi seenu xetliku dafa nekk ci kaw samay ci biir samay loxo te bëgguma dara rëcc wala dara sàggan ci mu sax fa juróom-ñetti at yoo xam ne lu nit di xalam ci xelam ne bes ko tegee nit dana metti teg nañ ko sëriñ bi te bul jàpp ne bu ne sëñ tubaa ak rab bu jam na ko wala sëñ Tuubaa dara jam na ko baatin gi bi ne ci moom day tax du metti déedéet yow bu la ak rab bu jamee li muy seddee ci yow sax ni muy méttee ci sëñ bay gën a métti ndax day am natt ci moom daa bokk ci njëg gi mu jaayante te ci contrat bi mu signé boroomam yàlla dana ko li gën a néew ci daw muy raf saa yoo ko defee ma xaj boo nee on oh, ma xaj kañ lay jeex ma xaj lii metti na ma xaj bu ma yëgoon ma xaj xel mi képp bu ko xalamee dana ko xaj mu tenir loolu lépp ci kawam ay balaa di wàcc ci kawam wax na Cheikh Issa Dieng radiyallahu taala anhu na ko li ma tax a bañub nasaraan mooy bi ma nekkee ci Gabon bu ma masaa xëy ubbi sama buntu ba yam ci ñoom ñu sol seen mbubb yi kër yeeg daal capp-capp yi xam naa ne tey ci fitna képp lay yem tey jii boo xoolee dëkk bi tëli bi yëpp gendarme yee koy escorté lu ñuy xaar sëti seen Tuuba sol seen yi mbubbi kër ak seen dàll yi capp-capp di escorté taalibe yi Sëriñ Tuubaa di leen aar te Sëriñ Tuubaa nee ne bu ma ma sax ubbi ca gabang yam ci ñoom xam naa ne bis boobu ci fitna képp laay yem tey ñuy aar njabootu Sëriñ Tuubaa gi ngir bañ fitna egg ci ñoom loolu war na doy na sëkk rek ci payu yàlla goo xam ne Sëriñ Tuubaa yàlla fay na ko adduna bépp seen bët tey jii ni xéewal yi baawaane moom de daana yegg ci béréb bopp bu ma sa bëgg ndawal gu mos du ko am Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Atta nee na am na bis boo xam ne dafa buur ndawal mu ne ci xel mi te gisu ko amul ku ko jox nga xam ne poti jardin yii la dem wuti jën ya ba mu ca musee ba noppi nee na raxasoo na saabu raxasoo na suuf waaye ba mu ne cas maam bëgg a jëm ci liggéey bi muy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam nee na kaddu yàlla gi dal ci kaw moo gën a diis asamaan na ko am na ci lor nag day lor yonent yi sëñ Tuubaa nee na bisub keroog laa dogu bàyyi jën wu mag ak jën wu ndaw nga xam diiru ak dundam duutu jëfandikoo jën wu mag duutu jëfandikoo jën ndaw boo demee ci majmuwaa boobu maam Serigne si la dajale nga xam ne jataayu sëñ bi la ci dajale nee na am na bis lu mel ni muuraake la ko Cheikh Ibrahima Fall yónnee ci géej gi bi ko sëñ bi musee mu takk ci dérgaleen ji nee na mu gàllax di ko nee na ci saase rek kàddu suñu borom dafa dikk na ko boo bàyyiwul jëfandikoo lu mel nii ndax neexaayu muuraake wi boo bàyyiwul jëfandikoo lu mel nii duutoo gis yonent bi sëñ bi nee na fa azimtu fil xiin ala jaaliha minal mabiat nee na may ma ma dogg keroog ci saase bëgg a bàyyi lépp luy dugub ba duutuma ko mus yalla na ma déedéet bul yegg foofu ndax boo ko defee mayit gor gi nga am ba jaay dugub danaa fexé ba dugub duutu sax ci kaw suuf lolu kon woné na sëñ touba bu mosaa musul neex sax dañ ko téré won takamti téré ko wokkutu Cheikh Maam Lamin Jóob Dagana nee na bis won na leen ab léegi ci njaareem bo xamné ci ab yélam la nekk dana leen lii li ci doon mat mat na ba ci yàq ta du dakk du fax lolu lepp nak lu ko waral moy fexe ba dog buumi jam ci nit ku ñuul li seigne abdou rahman bakki di wax mom Cheikh abdou Khoudous nan hubul khadim ala sudan muftaridun id xara rasul min raqil mudillina neena nit julli doone farata koor doone ko farata ci nit ku ñuul bëgg seigne touba non la doone farata ji mom ndax seigne bi moo dagg buumi jam ak buumi réer ci nit ku ñuul ba mom bopam mu ne dundam jëpp ci lan la ko jéxal mu ne afna alxayaata بما يرضي الاله وما جاء الرسول به مفروضا ومسنونا دوندم جيب موم شيخ القديم دافكو جيخال سي لوكاي ماي غيرمول يالا دافكو جيخال سي لوي تخ سونو سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم نيوم لول ريكا تخون سيرن توبا جوك غوديام ييك بيب بيتي گم ييب مو جيخال كو سي لوكاي ماي غيرمول يالا اك لوكاي جيخال سي سونو سيرنتي بي عليه الصلاه والسلام مسخ تي گيج nga xam ne moo waral màggal gi euh, juróom-ñetti at yoo xam ne lépp coona la lépp tumuranke la lépp fitna la ba bis bi nga xam ne nattu bi jeex na takk nga xam ne wax na ne bind naa ca galwaa bisub gaaw ginnaaw bi jihaad di jeexee ak tàggoo gi ma tàggoog natt yépp katabtu yow ma sabti inda galwa baada jihaad yi wa firaqil balwa gis nga galwa dafa am ñett yu fa sëñ bi am sëñ bi nee na bi ci jëkk mooy galwa moom yegg ca laa yegg ci yàlla rëkk ba dara du xutu sama diggante ak moom ca galwa galwa it naqar wu saytaane ma sa am la jeewal di metti metti nee na naqar bi ko gën a metti mooy yegg gi ma yegg ci yàlla ci galwa moo gën a naqari seytaane waaye it nee na beneen bi ci doon méttiwaat mooy jeexug natt ba fa amee jeex tàkk nga xam ne lillahi qad wasultu ànda galwa chaqa ala cheytaan ànda galwa katabtu yow ma sabti ànda galwa benn bu ci nekk sëñ bi wane ca yu ko ci boromam defal mu xëy dajale mboolem léppam gas nañu kàmb tabal ko ci fekke nañ ko muy bind sëñ Moulay Bousso bo démé ci xasida gogou mu bind nga xamné da cey wax ci tukki bi sëñ bi tukki bi ikhraju xut bi laxasal isbaana annahu yulin quluban tax da jami shawarid li yitem yep moy dajale nit ñi rek defar leen tappe seeni xol leral ko mu nakari leen ñu jël ko génne ko ma ngi cey wax ne amna bis bop sëñ bi day bind xasida amna ñu wax ne xasida wala khad karam naa la bi ko sëñ bi yeesalaat nee na benn tubaab dafa yor ab xajam japp ci collier gi di ko bam ñew ci señ bi mu ko mu tambali di di masale kayit yi señ bi di bindi señ bi ne ko an khirtasi te nga tee sa waa ci sama kayit yi mu ne ko wala lula nakari dong nak la doon amna ko tay xaar ma ma nan la def gur ak gurdu xaj la dem wuti ñew jal ko ci kaw señ bi señ bi xalima gi mu yoron di bindé moom la wiccax xaj bu njëkk bi dana jëppi takk booba bu mu laal nga tàkk ñu àndandoo di takk di way loolu la suñ mu laay naan ata bi kilaabin mubtarin maxwaqatihi fa xarraqaha bi naari masul kawaari kon lu ne sëñ bi daj na ko ci lu kenn mëntul mettali ba bi ñu jaaxle ci moom natt bi ñu ko mujj def mu ñibbi si indaaleen lu xéewal gu baawaan gi mooy dañu ne nañ ko fetal noppalu ci moom ci àll bu lëndëm bu wéet bu kenn nekkul ñu tànn fukki soldaar ak ñett kenn ku nañu jox la fetal maa ngi jéggalu ci baat bi tàmbalee ci wewu tànkam wii di ko laxasi yi buum ba ci bopp bi taf ko ci garab nee na bi ma gestoo sama ndeyjoor gisuma mbokk bi ma gestoo sama càmmeñ du taali bi du kenn ku dul yàlla fa ñoo sama yitte keroog yàlla képp a ko faj bi ko tubaab yi nee ndax dañuy takk say bët dana leen matu ko du ko jar mu wéet lool di kenn rek moom dong téewul ban janoo moom tey xaar ndigalul bu ñu nee 5 4 3 2 1 0 nañ fekk seeni bal ci guddeem gu wéet googee rëful tiitul yëgul na ñoom sax ña ngay waajal dara lu jëm ci ci moom waaye ba ñu teqanoo seen bale kat euh, au lieu que bal yi jëm ci sëriñ bi waaye kenn ku nekk sa bal dafa dëpp dal ci sa dënn nga daanoo njaxaanaay mu mu bindal boppam ne wahabanil wahabu fi thulaasa maa yuxjul ashrata wa salaasa kon fukk ak ñett yooyu yàlla may na ma ci bisu talaata boobu lu leen rusloo yonent bi alayhi salaatu bég ca moom ca melawoo wa sàkkul ko ci boroomam lépp lu mu bëgg boroomam it may ko lépp lu mu doon ñaan ak lépp lu mu bëgg ba mu takkee bagaasam bay ñëw Cheikh Ibrahima Diop dane ko sëriñ bi nga àndaale bi nga jógee ci géej gi nit mënta aj makka ba am yool bu ñu toll nit mënta jihaad ba am yool bu ñu toll ki daq yaxantu bu doon jéggi ay dexit di jaaye ak yaxantu wër adduna bi yépp منت أم بنفس بطل بيجا إلا ليه سين جبال لقد رجعت بما لم يرجع النبي ذو الحج والغزو أو ستجري من رفلي وجئت رحمة رب لا شريك له لظالم وأقي سبق ومقتصد يا دال بيغني بيسي لا يرمان دي يالا جودت نيب نغا خامني يا يرمان دي يالا جو خامني فاس نغا دال ادنا لولو لا دي مو نيو تي ريومي 11 نوفمبر 1902 يغو في تا ons bobu nga xamne tay ñing koy waajal ngir diko magal kérok bi Serigne Touba wacc sé ci musa siri ne ci bato bato bi mag ñiko woron diko di ko seet ni ku doon sentu wer ñenn ñi seeni put dafa wo kong nak mar lan lañuy mar moy di takamtiku serigne Touba min ne mi ngi ci bato bi ñew nan la ñewé ndax dafa ñëw di dund wala dafa ñëw dundul juróom-ñetti at géej nañu koo gis te ci loxo yi noonam la nekkoon waaw ndax benn ciir manqué ni ci moom wala ban ban ban cicatrice lañ def ci sëñ bi ñenn ñi mënuñoo toog mënuñoo taxaw dañoo mel ni ñuy ñuy càpp ndaay ñu mel ni ku séntu weer rek lu mat ñaari waxtu bato baa ngi taxaw kenn mënta wax ak kenn tàggoo ci sago ñu ne sëñ Tuubaa ngi ci bato bi ba ñu ne kaccet bunt bi ab tubaab moo dox ba xaajale laajte maam Cheikh Anta Gaawal uwee Cheikh bi ne Cheikh Anta wuyul sëñ bi mënul dox ndax mbégte mi mu am dafa tërëf di raam ci escalier yi bi mu duggee yam ci sëñ bi sëñ bee na ko Cheikh dem naa ba ñëw lewil ma wey maam Cheikh di jooy rongo ñu sotti ko muy lewi wey sëñ Tuubaa yi mu ne ko Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko topp leen sama mbóor defuma lu rusloo sama benn taalibe Cheikh yàlla bég na yonent bi bég na da ngeen bég ëllëg waaye Cheikh li des ci adduna loo leen gisati borom loxo lu tuut lii moo ko liggéey loolu la touba wax Cheikh Cheikh Sidi mukhtar mam Cheikh rongo jangi sab sabi rek muy joy xamul fumi nek ndax sa xayu karaw gi ak wey yi lewil mako deful ci rew mi lumay jurom ben wer jurom ñaari wer ñu jele ko fi yobbu ko ganar ñenti at jele ko fi yobbu ko cien juromi at te bu ci nek tar ak metti la fa seigne touba di nek. ba ama lësasin ñu jele ko fa andi ko ndiarem tok na fa ab dir do a woote nag gi di magal Touba def na njaareem ba Talsasin wara tolok 1921 serigne bi mo joxe ndigal magal gi serigne Touba magal nako ko 21 ba 27 kon juróom ben at serigne Touba magal nako ko magal màggalu sëñ Touba gi magal nako ko junni ak juróom ñetti téeméer la sëñ Tuubaa jëkk a def ci màggal gi sëñ Balla Faali Jeng la ko joxoon yónni ko suukar yónni ko waat kafe ak suukar kum soow yónni ko ndawal na ko nañ ko def ci màggal gi junni ak juróom ñetti téeméer la sëñ Tuubaa jëkk def ci màggalu Tuubaa moo ko wooteel boppam it ne leen doon ngeen sàkku ci man bis waaye sama borom jox na ma bis muy bis bi ma demee woon ci géej gi liggéeyali Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam bu dellu seetee na ngeen ma yàlla sama borom daal di leen di leeral nag daayoo bi bis bi am ne leen yowmal xiyaamatul akbar bu nit ñi demee ba tabbi àjjana guddi amatul ba cëg amatul nee na bu bisu màggal gi dellu siwaatee bii ma leen jox ndigal jëmmi àjjana dañ koy changé dolli dolliwaat taar ba dolli bànneex ba ba ñu nekk àjjana ñëpp ñooy laaj ana bis bi bisub lan la tey ba tax ñu soppi àjjana ñu ne mooy bis bi sëñ Tuubaa daan màggal lu ci àdduna muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar sëñ bi wax na ne illa lazina shahidul mahrika wa jahadul kufaara wal mushrika wali nawaalun kulluhum yaxbitu ni wa kullum zairun watini nee na mbooleem ku mas a ànd ak rasulaay jihaad bisu màggal gi da nga ciy ñëw lu tax mooy yàlla may na ma lool ñëpp ma ci ñee te faw ñu ñëw sama réew mooy siyaare si ma bokk na ci li ci gën a yéeme ci màggal gi li tax mu mat a fonk xam nga léegi-léeg ñu ne màggal gi férié la wala nangam nguuru yàlla gi moo gën a màgg te boo demoon tey ci mbindum mag ñi da nga ca ne jëmmi magal gi day am délégation magal gu yalla yonne kan mo fi ñew malaka mu tuddu wali moy ñew ci magal Touba. xadiratu xotsi bi ma xamne wali le malaika mi ñew ci magal gi tuddu dama nga jangi wala falu magal yi dang ko ci fek Cheikh Moussa ko wax ko mu ne wali le tuddu magal gi malaka mi fi ñew wali le tuddu moy observer magal gi diko contrôler hadratu xotsi manam bisu màggalu Touba lu way doxal ci kontu seigne Touba la jëm ndax bisu sante yalla la ndax mom kep ko am bis bu meuna doon am da nit ko ma sa ba rayee dana da ngaa nu ray la wala nga wala ñu ray sa ñooñ nga ray ña nga doon jàkkaarloo sëñ Tuubaa képp di kenn menn moom képp rekk dong liggéey ba mu jot na yàlla naa bokk ak ñëpp ma nopp li ci gën a yéeme mu ne ku ma ci santale yàlla lu ma ci yàlla fay nu bokk gii yaatu kan moo ko am ku du Seexul Xadiim màggal googu nag melo ko sëñ Tuubaa defal nga xam ne dégg nga tappalekat boobu di doon wax bërgi dem lu yàggu rek li ngay xamee mooy jëmmi màggal gi maanaam mooy mbir mu yéeme yéeme lu ma ta xalaat sëñ Tuubaa ko jëkk a santaane màggal lu ko ci ak fekkeem joxe ci ndigal te payug màggalu Tuubaa amul xaar ëllëg maanaam li ñu naan jooni jooni buy dal muy dal xam nga jooni jooni sax mën naa am réseau bu tàgg ak wala nanga buy dal muy dal mooy màggalu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nee na loo teg ma teg gis nga màggal gi bu ñëwee sëñ bi danaan tëjal wërsëg yëpp ma jox leen saa wërsëg yi bopp kan nga mës a dégg mu ne màggalu daaw a dàq ren mosoo ko màggalug daaw a dàq ren mosoo ko dégg bët bu set da dégg ñu ne ren a dàq daaw bu ëllëgee ñu ne ren a dàq daaw ren a dàq daaw loolu mooy sëñ Touba bés bi ba àdduna di tukki suñu boroom da ko caa jox ngëneel gu màgg gu mel mu ci amit màggal gi nga xam ne misaal mi ci jàmbi di gis ak rëy gi mu rëy Cheikh mu Ka dafa wax lu mel noonu ci euh, Euh, màggal gi wax ne yéen gaa yi Bamba déglu leen Moussa murit bi woo na leen ndaw ak mag ak góor ak jigéen nan wujji Ahmadul Mbacke màggal gi laa leen di xibaar yéen ñi xamut te di xiyaar te nar a dem defi siyaar ngir jëmmi Ahmadul Mbacke ñeneenti fan ci aw safar na ñépp jóg waaj li safar ngir bamba rabiu safar la wajli ahmadul makki kon murit bi bo gisee bu magal gi jub see ñu def préparation ñu lan wajal safar wajal safar mune ne ñeenti fan murit bu nek na juk tambali def préparation ci tayu safar wi ndax sëñ Tuubaa mom fukki fan ak ñent ci la tambali won waj lutax tax am ci mune ne ci màggal sëriñam lay amee léppi ngërëmam ba mujju jekki fa këram di nuru ak